délégué régional bu Senelec Pape Moussa Thiam ñëw nag fii si Touba ngir amal visite nemmeeku dem xool mbooleem gox-goxaan yi mbooleem post yi ngir nag saytu fi courant bi toll benn ngir nawet bi ñu nekk waaye tamit wàccaayu màggal Touba naka noonu sax nag jamono noonu fi nga xamante ni mooy post à haute tension bi nga xamante ni mooy alimenté Touba ak lenn si Diourbel dana courant bi di bàyyeekoo Kaolack ak tamit ligne bu Tobène barab bi bi mu fi na fi chef de poste bi si ay tontoog laaj fi nekk leeral na liggéey bi ni muy doxee fii ak tamit fan lañ actuellement on est ici au niveau du poste 225 kV de, Touba euh, c'est un poste euh, euh, à haute tension pour permettre euh, d'avoir une moyenne tension pour l'alimentation de la ville de Touba une partie de Bel. donc on a deux, lignes de 225 une venant de Kaolak et l'autre de Tobin, avec, deux transformateurs de 80, MVA voilà une puissance totale de 160 MVA donc euh, ceci, nous permet d'avoir une bonne euh, répartition euh, et une bonne alimentation au niveau des, départs HTA, au niveau de 30 kg, comme ça pour mieux lutter sur la baisse tension. C'est pour ça qu'on a mis des 80 MVA. sensibilité donc poste bi dafa laaj yenn euh, amélioration ak yenn yenn euh, entretien donc c'est pour cela dañ que changer automatiquement élever la tension à 225 kV déjà en plus ah, euh, après ñu dolli ay transformateur 80 MVA pour gën a yokkul dooleel dolé dolé dolé dooleel ah. dëkk bi ndax ak Touba ak màggaay Touba ñu ko xamé extension yi dafa dafa bari ak yoy donc moo fi lan lan moy dajé fi Euh, ñaar ligne ñaar ligne 225 ñoo fiy ñëw. yu jógee benn bi jógee Kaolack benn bi jógee Tobène. lépp donc Touba rek. mu tax a jóg Touba rek a a kese kese kese. dooleem nu mu toll. te en plus déjà ñu ngi doole benn boo xam ne day jóge Louga ñëw fii. actuellement ñu def travaux yi sax si biti soo génnee si biti. kon lii balaa màggal gee ñëw dina pare. bëgg incha allah kon dal lolou moy wane ne ñun ñëpp tàmbali nañu. fii ah non fu tolli kay depuis ça fait presque depuis depuis mois de janvier ñam ñu ngi ngi ci depuis janvier. ñu ngi ci donc euh, ñom ñu ngi ñëw extension yi euh, euh, je de var bi. en plus amaat na beneen poste 225 aussi bu bees aussi au niveau de dëkk bi Ndindi voilà c'est ça. donc pour ça mën nañu def fii Touba moom courant ko wër ndombo. <laughs> voilà.

quand un chien vient te voir personnellement, mm. <laughs> voilà, donc ça, ça fait quelque chose. Donc ça, montre l'importance que, l'importance que vous tenez à votre, à votre travail, à votre service et tout ça. En tout cas, ñu xam ne ñun. tàmbali nañu liggéey bi jëm ci màggalu deux mille bi ñun moom xaaruñu kenn tàmbali na. ànd naag fii tournée bi ak chef de distribution bi nga xamante ni mooy lemu fare fii si Touba dem nañu quartier bi di bàyyi Fall ga bëgg noonu nag courant bi gën faa jotandi askan wi gën na nag am courant ba mu doy sëkk. fii tamit naka noonu ne ñu ko amale woon poste bu mag ba chef de distribution bi di lemu si diggante laaj ak tontu si kilifaam gii leeral na ko lu bari. Non, ce sera en boucle dans la sera en boucle. Tu as fait en boucle. Il y a beaucoup plus de sécurité en boucle. Voilà. D'accord, Donc cette localité aussi, c'est une localité à problème ou bien c'est pas une localité à problème Bon, c'est une localité à développement démographique considérable. D'accord, il, y a fréquemment des interventions en acquiesce Non, je ne pense pas. parce qu'il y a un bon réseau en termes de, de, de, postes, c'est bon. Pas trop. Et, tous les postes qui sont là ont été mis en service et raccordés ici. Hein. D'accord. Dans cette zone-là, tu avais mis combien de nouveaux postes en 2020 non, Non, l'un des Raccordé, mise en service. avec le projet Procolec. Avec le projet Procolec. Hein. Avec le développement 20 ans. Hein. D'accord. Donc, on va recenser les poches hmm, où il y a des angles morts quoi, en termes de réseau okay, où il y a une forte progression de la démographie pour voir comment nous allons essayer de résoudre ça. Quoi, hein. 300 mètres 300 euh, euh, parcelles sëñ Assane Fall 300 parcelles sëñ Mbaye Fall 300 parcelles kilifa yi ku nekk am 300 parcelles lees ñu ko kilifa ñu ko jox ko seex yi vous bëggoon naa nga xool yi nga xamante fi ñu ay caaxaan. il demande deux postes. Ah. deux postes. numéro yi numéro sëñ bi boo ci woo moo lay wuyu waaw moom xam na xam mag yi léegi nag loolu moo tax ma bëgg ñi fi nekk ñëpp am courant waxuma sëriñ mais taalib yi ñëpp laa bëgg ñu am courant ndax am na kër yu bari yoo xam ne amuñu courant te courant bi ñu nga wax xool fii ko benn portion fii boo xoolee si benn portion la doo fi mm-hmm. fii yëpp so portion rek bu jéggi te kër yëpp ñu trois bi bu mënut a yëg it poste bi wax nañu bu ñu ko yokkee li ñu bëgg a wax poste ngi nii ci biir kër bu am ngi nii ñaari poste yi xam ne ni moom sa Moustapha Dieye mi fi nekkoon délégué comme yooyu ñu baaxee ci baaxam ma ne ko ay ah, léegi moom li vêtement si liggéey bi la mu gaara doon dox maa moom di dox lu bari di natt wax dëgg yàlla ni ma ko bëgg woon lépp moom délégué bi yëkkati na kàddu nag gis ni li leen tax a jóg du leen dul courant gu doy jote fépp ñëpp mën a dund dund gu yemb. léegi léemu. Euh, fii zone la bu sensible. dégg nga li mu la wax li parce que zone la boo xam ne nii moo regroupe lépp lu fi maam si Cheikh Rahima Fall am. te bu fi ma bu màggal gi jotee day nekk zone boo xam ne nit ñu bëri dañ fi daje. Mm-hmm. du dëgg donc loolu na nekk loo xamante ne Euh, tey def nañu réunion ñaareelu CONAGER bi nga xamante ne bii. Mhm. mooy comité bi organiser màggal gi. ci mhm. wàllu Senelec ñëpp daje fa. Mhm. directeur yëpp daje fa. Euh, ku ci nekk wax la nga defoon daaw ak li nga war a def ren. donc yow boole leen ci li ngeen war a def ren boole leen ci. Euh, li sëñ bi wax. tu te mu gaaw donc dès la semaine prochaine en principe li mu wax yëpp war na nekk takk boo xam ne ni yéen étude boo xam ne ni ci ñu sukkandiku nag ci cartographie bi ngeen koy jox mm-hmm. parce que plan yooyu ngeen koy jox mooy ñooñu ci la ñu xamee fii mooy gox sàngam fii mooy gox sàngam mm-hmm. bu ko defee ñu xool post yi diggante post poste bi nan la nan la mel mm-hmm. est-ce que dina laaj yeneen ñu tàbbalaat fi yeneen ñaari poste wala est-ce que post yee dañ koy redimensionné rek tu a loolu yëpp euh, moom dina ko xool quoi hmm? voilà parce que ñun Senelec bu fi dara lul rek màggal gi ñoŋ. képp ku war a jot ci courant nga jot ci te boo ko boo jotee mu nekk courant boo xamee ni bu du nekk bu néew doole. Euh, ren nag boo gisee ci instruction wu directeur général ma Mademba bi tey. dañoo teel a jóg. wër Tuuba di nemmeeku. gox goxaan yu mel nii nga xamante ne bii. Euh, malgré effort yi Senelec def daaw gis ngeen ko. Hmm, loo xam ne ni ñu ngi ko def su les instructions du directeur ma dem Mademba bi tey. Hmm, euh, musu fee am. Hmm. waaw mais Touba dey dëkk boo xamante ne bii saa ba koo ñamalee mbubb at ma top topp nga ñëwalaat ko beneen mbubb ndax mbubb noonu doo ko jotati ndax ni nga quartier yi nu muy màggee gis nga nit ñi ni muy ni muy ni ñuy ni ñuy sakkane macha allah waaw donc euh, déglu nañ la. Mm-hmm. donc loolu laa amoon lu ma lay tontu. chef de mm-hmm. service distribution gi nii. Mm-hmm. jox nañ ko instruction yi ñu ko war a jox. donc moom dina def xayma yi mu war a def yëpp. xam nga wàllu courant dafa xaw a niroog wàllu tailleur. bala mu laa ñawal. da lay nattal. du dëgg natt natt boobu nag ci la ñu toll. donc yéen boo leen ko joxee jumtukaay yi mu war a natt yëpp. moom dina jë dina xam ba xam fii dañ fa war a def poste dañ fa war a def luñ fa war a def dina ko xam. jërëjëf. jaajëfal dina ñaanal nag sa tànk yi nga ñëwee ak ñi nga àndal ñëpp yàlla na yàlla defal ko muy ay yiw lépp loo ci fas noo ñaan yàlla ci dara jëy sa faal yàlla ko yàlla defal gudd fan nga ak wér yàlla sàmm la taxaw aar musal la li nga am yéene fii ndax keroog da nga ne leem sama kanam hmm. man kat liggéey gu ma Tuubaa ndax barab maam Seex Faal daa war a leen dégg naa amul courant hmm. dama bëgg ñu liggéey barab maam Seex Faal ba mel na war a mel hmm. loolu wax nak ko sëñ sa jëmbit wax naa ko yëg na ko kon yéen yi nga am ci Tuubaa am ko Sénégal gépp nag jox yéen a am ko ci kese faal gi yàlla na ci yàlla dimbali. ba nga ba mel noo xamante ne kaa su njort. tournée bu am solo la woon si Touba demoon na tamit Daaru Salaam xool tamit post yi ngir magal gi mën a jaar si yoon du am benn jafe-jafe courant wër mboolem installation yi nekk Daaru Salaam laata nag muy tëj tournée bi moom Pape Moussa Thiam di njiitu Senelec si diggante Thiès Kaolack ak Diourbel.